الحب اللي عمره ما يشمت asalaamaaleykum mbokki déglukat yi seen mbokk seen xarit pasteur Ahmed Fall moo dellu siwaat ak yéen ci sunu émission kàddu gu sell gi te di leen di nuyu ku ci nekk ci turam ak santam di dellu di sant yàlla sunu boroom ci turu Seydina Isa almasi bi Yesu Christ asalaamaaleykum sunu mbokku déglukat yi sunu mbokki auditeurs yi fii ci sunu programme kàddu gu sell gi seen mbokk seen xarit pasteur Ahmed Fall moo dellu siwaat ak yéen ak doomu ndeyam di am di jàmmam pasteur Balla Konaté ci émission bi ñu dippee kàddu gu sell gi ñuy nuyu ku nekk ci turam ak santam di nuyu ñépp ñi nga xam ne ñi ngi yeewoo fii ci biir Sénégal di leen nuyu ci turu Seydina Isa almasi bi Yesu Christ di sant yàlla sunu boroom mi nga xam ne moo ñu may ñu tal ko ba teew fii di sant yàlla sunu boroom mi nga xam ne moo ñu jox téereem bu sell bi nga xam ne buñ ko ubbee jàng ko xam lépp li jëm ci moom sunu yoon gën a leer mbir yi gën a woyof ci ñun ñu ko gën a mën a wéetal gën a mën a nekk ak moom mbokki auditeurs yi ma bàyyi pasteur Balla mu nuyoog yéen balaa ñuy dugg ci sunu émission tey
jërëjëf pasteur Ahmed ginnaaw bi ñu sante yàlla di ko gërëm moom mi ñu may ñu mën a dund ba fekkee waxtu bi te di waxtaan ci kàddoom kon ñu ngi koy gërëm di ko sant di la gërëm di la sant di la nuyu di nuyu mbokk auditeurs yépp di ñaan rek yàlla wéy di wàccee ci kenn ku nekk ci ñun ay ngëneelam ci turu Seydina Isa Yesu Krista
jërëjëf pasteur Balla jërëjëf euh, mbokki auditeurs yi balaa ñuy dugg nag ci sunu waxtaanu tey pasteur Balla dañuy bëgg a wax ci li nga xam ne moom mooy xew-xew bi nga xam ne moom moo ëlëm dëkk yu bari fii ci biir Afrique rawatina Afrique soow jant bi fii ñu naan Afrique de l'Ouest feebar boobu nga xam ne dugg na ci ay dëkk yu mel ni ki Guinée Sierra Leone Liberia ba fii Sénégal sax ñu am ci benn cas ñi ngi ñaan yàlla sunu borom ci turu Seydina Isa almasi bi Yesu Christ mu aar ñu ci aar ci képp koo xam ne yaa ngi fii ci biir Sénégal wante aar ci ñi nga xam ne dugg na ci seen biir yal na leen yàlla sunu borom musal ci jàngoro jooju ci feebar boobu na leen yàlla sunu borom musal ndaxte ay doomu aadama lañu te dañu soxla ku leen yi dimbale dañu soxla ñu leen di jàppale dañu soxla ñu leen di ñaanal ay doomu aadama lañu dañu soxla yërmande nit ñi dañu soxla yërmande yàlla moo tax pasteur Balla may wax ne donte feebar la bu ñu fàtte ne ni mu duggee ci dëkk yooyu mënoon na duggee noonu suñu dëkk kon nañu sant yàlla suñu boroom te di wéy di ñaanal ñooñu nga xam ne wàcc na seen kaw muy sunu mbokk yi nekk Guinée muy sunu mbokk yi nekk Liberia muy sunu mbokk yi nekk Sierra Leone muy sunu mbokk yi nekk ba fële RDC ñu ngi leen di ñaanal yal na yërmande yàlla sunu borom wàcc ci seen kaw ci turu Seydina Isa almasi bi Yesu Christ ba faral leen jàngoro jooju feebar boobu ba nga xam ne ay fàttali kese lañ ci am pasteur Balla.
waaw pasteur Ahmed ni nga ko waxee noonu rek la xam nga nattu moom yàlla moo koy wàccee ci jaam bi kon lu feebar bi métti métti lu mu tar tar ni nga ko waxee rek bu ñu fàtte ni ñun ay doomu aadama lañu te li yàlla di xaar ci ñun mooy yeneeni doomu aadama ni ñun bu ñu nekkee ci nattu nekk ci tolof tolof nekk ci coono ñu taxawu leen dimbali leen te def ko rek ngir màggal turu borom bi te bu ñu fàtte it ñun sénégalais yi ne réew yooyu nga tudd te feebaru Ebola nekk fa. am na ay sénégalais yu nekk ci réew yooyu te bu leen feebar bi dalee foofu ñooñu dañ leen di taxawu faj leen ba ñu wér wala ñu def ci bokk lañu ca mën kon ñun aussi fii ñu nekk dañ leen war a jàppale ci ay ñaan jàppale leen ci ay taxawu ngir yàlla ci suñu bo boro yàlla suñu borom mi nga xam ne moom rek moo mën a tàmbalee fi doomu aadama tëlee ba def la gën mu defal ñu la gën te ci suñu yaakaar la gën mooy mu fàggal ñu feebar boobu ba jàmm dellu si ci réew yooyu pasteur Ahmed ni nga ko waxee Euh, rax ci dolli pasteur Balla may soññ mbokki Sénégal mbokki auditeurs yi ne balaa yu mel ni bu duggsee ci àdduna li ñu war a njëkk a def mooy ñu delloo suñu bopp ci yàlla suñu boroom ndaxte lu am solo la kon lii nga xam ne ah, laal na dëkk yu bari kon na doon li nga xam ne danañu jariñ danañu jariñ ci kaw ñu xoolaat suñu bopp gën a fagarlu xool ni ñuy dëkkee xool ni ñuy tëddee xool ni ñuy lekkee xool fi ñuy tuur mbalit yi xool lépp li nga xam ne dafa jëm ci cet ñu def suñu kémtalaayu kàttan gën a fagarlu ndaxte docteur yi nga xam ne yàlla sunu boroom may na leen xam-xam nee na mbir mu mel ni boo setee nga fagarlu rek kon mën nga ci mucc yàlla sunu boroom mën na la dimbalee ba nga mucc ci kon nañu fagarlu nañuy gën di fagarlu gën di set waaw nañu nañu nañu bàyyi xel ci loolu ci dëgg-dëgg nag euh, ñu bàyyi xel itam ne kat ñooñu nga xam ne wàcc na seen kaw soxla nañ ñu tey jii ñi ngi yuuxu wallu xëy na nag mënuñu yegg foofu wante képp koo xam ne yaakaar nga ne am na loo mën a def ngir dimbale leen na nga ko def yàlla sunu borom dana la ko fay muy ay ñaan muy daal pexe boo mën a def ngir dimbale leen nañ leen ko def ndaxte ñooñu dañu soxla ñi ngi yuuxu wàllu yàlla nañu yàlla musal ci feebar bi te yàlla nañu yàlla may ñu gën a fagarlu ngir lu mel ni ah dana du fi du fi du fi law ngir lu mel ni du fi yàgg du yàgg ci biir Afrique jërëjëf pasteur Balla kon nag dañuy joox ci sunu émission tey comme niñ koy faral di defee saa su nekk jàng ci kàddu gu sell gi nga xam ne ci yàlla sunu boroom la jógee ci aji sax ji ñu jàng ci téere bi nga xam ne ñetti émission yi wees yépp ci la ñuy jàng mooy bataaxal bi nga xam ne moom la ñu jagleel waa Rome te mu nekk ci kóllëre gu bees gi lii la yàlla sunu boroom wax bu ñu xoolee ci aaya juróom saar benn mi ngi wax foofu ne léegi nag gannaaw àtte naa ne nu jub ci kaw ngëm euh, nañu jàpp ci jàmm ji ñu am fa kanamu yàlla jaarale ko ci sunu boroom Yeesu Christ yàlla sunu boroom mi ngi wax foofu naan negam léegi nag ñi nga xam ne gëm nañu àtte na leen nañu jub kon nañu jàpp ci jàmm jooju nga xam ne jóge na ci moom te mi ngi jaaree ci sang bu tedd bi di Yeesu Christ pasteur Balla mu mel na yàlla sunu boroom mi ngi ñuy wax foofu nekkat jàmm ji nga xam ne moo war a dox diggante doomu aadama ak ki ko sàkk mooy yàlla sunu boroom jàmm jooju ci Seydina Isa almasi bi Yeesu Christ lay jaar waaw pasteur Ahmed ni nga ko waxee noonu la ndaxte ci kàddu yàlla nga ko tibbee xam nga doomu aadama bi dëgg-dëgg bu ko xamee ak bu ko xamul j- a- jàmm digganteem ak yàlla dafa deñ bi bàkkaar tàbbee ci biir dundam ndaxte ñ- ñàkk am ak nit jàmm ñàkk am ak yàlla jàmm weesuwul mu mere la ba mer boobu tax mu génnee la ca bërëb ba nga xam ne fa la la defoon te muy aadama ak awa suñu maam ya yàlla dugaloon leen ca àjjana muy bërëb boo xam ni wax dëgg fa yàlla dara dara ñàkkuñu ko fa woon waaye ñàkk jàmm dox ci seen diggante ndax bàkkaar bi tàbbi ci seen biir dund ba yàlla génne leen ci bërëb boobu téere bu sell bi ci aaya yi nga ñu jàngal pasteur Ahmed di ñu wax nag ni yàlla ci boppam dogu na delloo si jàmm suñu diggante ak moom te bu ñuy jàng téere bu sell bi ca njalbeen ba léegi dañuy gis ni yàlla day wax lu leer ni am na lu dox ci digganteem ak bani aadama ba jàmm amatu fa loolu fa dox di bàkkaar léegi nag yàlla ci boppam andi na jàmm suñu diggante ak moom maanaam jubale nañu ak boppam te jubale boobu di jur jàmm jooju ci suñu borom Seydina Isa almasi bi Yeesu Krista la ko yàlla jaarale kon mbir mi daal noonu la ko yàlla tërale pasteur Ahmed waaw kon yàlla sunu boroom pasteur Balla mi ngi ñuy leeralal foofu ne jàmm jooju nga xam ne buñ ko sàkkoo te mu war a dox suñu digganteeg ñun may nañu bunt bi nga xam ne may nañu pexe bi nga xam ne fa lañ mën a jaar ba jot ko te jàmm jooju mooy Seydina Isa almasi bi Yeesu Christ kon mën nañu jàng fii ne kon jàmm diggante doomu aadama ak yàlla boroomam yàlla sunu boroom kenn rek la mooy Seydina Isa almasi bi Yesu Christ kon ñu déglu tuuti cant balaa ñuy ñëw ci ñaareelu xaaju waxtaanu tey wi
خونران لنا دوني ريال تسومي شينو نكدم فنا بتدرى بزيرت ريال كيل جدول دوني وملك جدول كل الهوي
kon jërëjëf mbokki auditeurs yi ñuy wéy di jàng ci téere bu sell bi li ñu yàlla sunu boroom wax kon ñu jàng ci bataaxal bi ñu jagleel waa rom ci aayu juróom saar ñaar foofu yàlla sunu boroom di wax ne moom moomu moo ñu ubbil bunt ci yàlla ñu taxaw temm ci yiwam mu jaar ci ngëm nee na moom moomu te moom moomu moomu ñuy wax mooy Seydina Isa almasi bi Yesu Christ moo ñu ubbil bunt ci yàlla ñu taxaw temm ci yiw jaar ci ngëm kon foofu bële mi ngi ñuy wax jàmm ji nga xam ne mën nañ ko jot sunu digganteeg yàlla ci kaw ñu gestu Seydina Isa almasi bi Yesu Christ fii mi ngi ñuy wax ne bunt bi nga xam ne buñ ko ubbee dañuy jàkkaarloog yàlla sunu borom rëkk bunt boobu mooy Seydina Isa almasi bi Yesu Christ.
waaw pasteur amet kàddu gi noonu la ko àndee noonu nga ko waxee te noonu la nekkee mooy ni jàmm diggante doomu aadama ak yàlla mi ko sàkk jëmm la du du ay wax du ay jëf ne jëmm la te jëmm bi seydina isa la yesu krista kon ngir nga am jàmm sa diggante ak yàlla faw nga am jëmm boobu ngir nga am jàmm sa diggante ak yàlla faw nga jaar ci buntu boobu nga xam ni mooy seydina isa xam nga moom ci boppam daf ko wax te mu am neneen num ko waxee parce que bu ne man maay yoon wi maay dund gi kenn munul àgg ci yàlla baay bi te jaaroo ci man kon wax bi jeex na ñun ñëpp li ñu bëgg mooy dem ci yàlla nee na benn yoon moo am bu yoon boobu mooy ubbi buntu bi lay jëmale ci yàlla te moom la dund gudul jeex bi moom la kon lépp daal ci jëmm jooju lañ ko tënk muy Seydina Isa munoo munoo am jàmm ak yàlla te amoo Seydina Isa munoo am dund te amoo Seydina Isa munoo dugg ci bërëbu yàlla bu sell bi ba jàkkaarloog yàlla comme ni nga ko waxee sànq te amoo Seydina Isa ndaxte loolu ci Seydina Isa ci boppam mooy moom mooy loolu moom mooy jàmm diggante nit ak yàlla munuñu taxali Seydina Isa ak jàmm bi nga xam ni moom la ñu yàlla di jox lu tax ndaxte moom moo liggéey loolu ci bant bi deretam boobu mu tuur dama koy faral di wax fi moo ñuy sellal ba bu lépp lu doxoon suñu diggante ak yàlla ni tolof tolof ak safaan day effacé wu te bu faase woo bu ñu jàkkaarloog yàlla bu ñu ubbee bunta boobu di Seydina Isa te ngëm nag di ko ubbi bu ñu jàkkaarloog yàlla yàlla day gis rek mindeef bu bees mindeef boo xam ne lépp li doxoon ci digganteem ak moom di ñaawteef di bàkkaar dañ na kon jàmm day dellu si ndaxte li taxoon ma xuloo ak yow bu fa loolu nekkatul damay juboo ak yow pasteur Ahmed waaw te pasteur Bala da nga wax lu am solo nee nga bunt boobu ngëm rek moo ñu ci mën a jubal ngëm rek moo ñu ci mën a yeggal waaw euh, pasteur Ahmed xam nga bunta boobu nag wax dëgg fa yàlla yàlla daf ñu ko baaxee daf ñu ko yombalal ngëm rek la laaju ñu alal laaju ñu judd laaju ñu ay jëf ndaxte loolu yëpp munuñu ko alors ngëm rek xam nga damay faral di ko misaalee nii damay faral di misaalee ni ñun bi ñu nekkee xale bu ñu defee suñu waajur lu bu góor lu ko métti ba mu ñuy xaar ak yet bi ci kër gi man boog dama daan daw te su ma dawee ba ngoon jot di taxawaalu ci mbedd bi ba ngoon jot dafa am sama benn nijaay boo xam ne dafa ma buggoon te sama papa daf ko déggaloon munu ko bañal dara donc dama doon gëm ni sama nijaay boobu su ma demee ci moom mu jàpp ma ci loxo andi ma ci kanamu paa bi mu wax ak moom affaire bi day day arrangé wu kon dama daan dem ci moom kon ngëm boobu ma amoon ci sama nijaay boobu te su ma demee mu régleel ma problème boobu loolu la ci misaal misaal nag du doon loo xam ne day parfait comme ni ko tubaab di waxe ne voilà ne ci misaal loolu la da nga war a gëm ni boo demee ci Yeesu Krista mu jàpp ci sa loxo dina la andi ci kanamu yàlla dina wax ak yàlla won yàlla moom li mu liggéey ngir yow ngir fay bor ba nga ko ameloon muy deretam boobu tuuru yàlla ne ko baax na kon na agsi mën naa ko dalal waaw pasteur Balla yàlla sunu borom teg ci ne ci saar juróom benn ci aayu juróom nee na ndaxte bi ngeen amul jenn doole boobu la Christ dee ngir yéen fekk da ngeen ma weddi woon yàlla sunu borom mooy wax foofu nee na bi ngeen amul woon benn doole boobu la Christ faatu boobu la Christ dee ngir yéen fekk da ngeen weddi woon waaw mi ngi mi mi mi saar bi dafa mel ne yàlla sunu borom dafa ñuy wax foofu ne kat yéen da ngeen nasaxoon xam nga sànq da nga wax ay jëf li nit ki mën a def dafa mel ne yàlla sunu borom dafa ñuy fàttale ne kat ñun li nga xam ne xeex bi ñu waroon xeex euh, sunu sunu sunu bakkan googu nga xam ne waroon nañu xeex ba nga xam ne léegi dañuy jeex ci yàlla sunu borom nee na kàttan googu amuñu ko wante am na keneen koo xam ne moom moo xeex xeex bi ngir mën ñu jot.
waa te te ni nga ko waxee pasteur daanaka dafa dafa leer nañ ñu quoi ba munuñ munoon nañ ci sax bañ a yokk dara ni nga ko waxee noonu la xam nga yàlla da dafay wone aaya yooyu day wone d'abord mbëggeelu gi yàlla parce que yàlla mu ñuy won ni li ma leen defal ni defaluma leen ko ndax dama bëgg ci yéen defaluma leen ko ndax da ngeen am kàttan defaluma leen ko ndax dama gis jëf yu rëy yi nga xam ne defal ngeen ma ko man mais dafa ne bi ngeen amulee doole boobu laa leen yabal Christ Yeesu muy firndeel mbëggeelu yàlla ci ñun waaye li nga wax la mooy ni yàlla daf ñu seetaan bon seetaan ëpp naa wax mais yàlla daf ñu xool mu gis ñu kërti kërti ci diine ñu kërti kërti ci yu baax ñu kërti kërti ci yu jekk waaye amuñu kàttan bi mënuñu àgg fa nga xam ni fa la yàlla bëgg ñu àgg fa ci sell ak sellal ñu loof lool chaque at bu nekk bés bu nekk ñu ngi jéem ñu ngi góorgóorlu yenn saa yi ñu ne man dama sonn ci maye bi dama sonn ci saraxe bi dama sonn ci lii dama def lii yàlla ne munu leen ñu jeexal takk néew doole ba xamal ko suñu bopp yàlla ne léegi nag kaay leen ma won leen sama mbëggeel fi mu toll mooy ma yabal leen Yesu Krista almasi bi Seydina Isa ngir mu ñëw moom mooy borom doole bi moom mooy borom kàttan bi li nga xam ne jéem ngeen ko te manu leen ko moom mooy ki ko mën a def ngir yéen te loolu day wone dëgg-dëgg dayoo ak darajaw Seydina Isa Yesu Krista liggéey boobu mu def waaye day wone aussi mbëggeel ak cofeelug yàlla jëmale ci doomu aadama te te pasteur Balla ma lay fàttali jëmm ju sell jooju li mu mës a wax ndaxte wax naa nit ñi ne leen képp koo xam ne da nga sonn ñëwal yebbi sa yen ci sama kaw mu mel ne foofu day wax bàkkaar gu diis gi nga xam ne mi ngi ci sunu kaw nekk ci kaw doomu aadama ñëw leen yebbi ko sama kaw ma yenul leen ko ndaxte am naa doole ji waaw te gis nga pasteur Ahmed li ci gën a am solo mooy fi mu ko doon waxee ak ñi mu doon waxal Israël la ko doon waxee bani yawut yi la ko doon waxal mooy ñoo xam ne dañoo am diine xam yonent yi xam nan la ñu war a jaamoo yàlla xam sartug yàlla yi ñooñu la wàcc ci seen biir ne leen ñëw leen ci man yéen ñëpp ñi sonn te diis ndaxte ndaxte laaj ngeen laaj ngeen laaj ngeen góorgóorlu ngeen def ngeen li ngeen man mais ku leen xool sax xam ni da ngeen sonn ndaxte li leen diina yeen attanu leen ko ku leen xool sax xam ne da ngeen diis ndax seeni bàkkaar ak seeni ñaawteef yi tegu ci seen kaw ñëw leen ci man ma yenul leen ko ndaxte man maay borom kàttan bi man maay ki leen mën a may noflaay pasteur Ahmed dëgg la pasteur Balla kon yàlla sunu borom di ñuy wax foofu ne kat am na kenn koo xam ne jëmmal na ko mu ñëw wàcc fii ci àdduna am kàttan goo xam ne jàmbaarloo na ak seytaane am na kàttan goo xam ne may na ko mu noot seytaane am na kàttan goo xam ne may na ko mu gàddu sunuy bàkkaar bàkkaaru doomu aadama yépp kenn kenn génnewuñ ko ci képp kuy doomu aadama jëmm jooju yàgg noonu say bàkkaar jël na ko bi mu yéegee ci bant bi kon jëmm jooju mooy Seydina Isa almasi bi Yeesu Christ ñu déglu tuuti cant balaa ñuy ñëw ci ñetteelu xaaju waxtaan wi
al הזמן את פי להודות ולהלל ולשבח את פועל השם עוד קודשה ברכוש חנתה וכאילו חיר על ידי תמיר ונעלם בשם כל ישראל
jërëjëf mbokki auditeurs yi kon ñuy wéy di jàng ci téere bu sell bi te di ñaan yàlla sunu borom yàlla nañu xel mu sell bi wàllu si ba lii nga xam ne mooy kàddu gi kàddu gu gu gu sell gi kàddu gi nga xam ne mi ngi jóge ci aji sax ji kàddu jooju laal sunu xol dugg sunu xol ñu koy jëfee ñu koy dundee téere bu sell bi yàlla sunu borom mi ngi ciy wax ci aayu juróom bataaxal bi ñu jagleel waa Rome ci saar juróom ñett nee na firndeel naa sama mbëggeel ci yéen ci li Christ dee ngir yéen bi ngeen nekkee sax ay bàkkaarkat yàlla sunu borom mi ngi wax foofu nee na firndeel naa sama mbëggeel ci yéen bi Christ deewee ngir yéen yàlla sunu borom dafa mel ne foofu mi ngi delloo si sunu xelkat ne ñu waa jooju jëmm ju sell jooju nga xam ne faatu na ci bant bi du woon kenn ku dul sama mbëggeel bi ma jëmmal mu firndeel ko
waaw pasteur Ahmed euh, ni nga ko waxee noonu la xam nga ñun ci réew mi dañuy faral di wax ni yàlla baax na yàlla dafa bëri yërmande waaye téere bu sell bi daf ñuy dëggal loolu daf ñuy dëggal ni yàlla mooy aji baax bi yàlla mooy aji yërmande mais mbaaxug yàlla ak yërmandeeg yàlla yàlla daf ko jëmmal ci Seydina Isa Yesu Krista kon mbaaxug yàlla ak yërmandeeg yàlla boo bëggee dajeeg moom boo ci bëggee bénéficier wu boo bëggee mu am njëriñ ci sa biir dund faw yow ci sa bopp nga daje ak Seydina Isa Yesu Krista ndaxte yërmandeeg yàlla ak mbaaxug yàlla foofu la daje ci moom kon te yàlla mu ngi wax nag ni loolu dama ko def bi nga xamee ni yéen ñëpp ay bàkkaarkat ngeen xam nga ñu ngi fàttaliku émission yi fi njëkk a def yàlla tënk doomu aadama yépp ci seeni ñaawteef loolu la wax fi mu ngi wone mbaaxam ak yërmandeem ci yeesu krista almasi bi boobu fekk na ni moom xool na saytu na ba gis ni doomu aadama yépp ak fu ñu mënta nekk ci kaw suuf ay bàkkaarkat lañu ba bokkatuñu ci ndamam kon yërmande boobu ak mbaax boobu mu tënk ci seydina isa doomu aadama yépp ñoo tax mu ñëw ak foo mënta dëkk noo mënta mel làkk boo mënta làkk ci nga bokk kon nag wax dëgg boo bëggee jot ci yërmandeg yàlla ak mbaaxam faw nga am Seydina Isa ndaxte foofu la tënku pasteur Ahmed.
waaw kon pasteur Balla ndax mën nañu wax foofu ne coono googu nga xam ne jëmm ju sell jooju daj na ko bi ko yàlla sunu borom jëmmalee wàcceeku sunu biir deegu métti googu nga xam ne faatu na ko anam yu diis yooyu nga xam ne ci lañ ko songee ba daaj ko ci bant bi ndax dañuy wax mën nañ wax ne coono gu métti googu yépp yépp yépp dafay firndeel dara lu dul lenn lu dul mbëggeelu yàlla kese
loolu rek la pasteur Ahmed du du leen xam nga damay faral di wax ni suñuy digg suñu diggante ak yàlla sunu borom mën nañ di ko natt di ko seetlu saa su ne ci ni ñuy dundee ñun suñu bopp ci kaw suuf fi xam nga nit boo ko bëggee dëgg nit boo amee mbëggeel ak cofeel ak yërmande ci moom dëgg day feeñ ci waxtu yi nga xam ni moom dafa tële mu nekk ci ay tolof tolof mu nekk ci ay jafe-jafe dañuy gis nga bàyyi sa lépp taxawu ko comme ni ni mu waree sonn ci lool ngir waa ji mën a génn ci jafe-jafeem yooyu ci tolof tolofam yooyu bu ci génnee ñu xool ñu ne ah dëgg dëgg dëgg parce que amet ku bëgg konaate la loolu day seen ci suñu biir dund alors téere bu sell bi daf ñuy wax ni coono yooyu almasi bi daj ci kaw suuf te mu jóge ci wetu yàlla nekkoon ak borom bi bi nga xamee ni dara amagul coono yooyu jafe-jafe yooyu nga xam ne moom la am ci kaw suuf lenn waralu ko lu dul mbëggeel ak cofeel bi nga xam ni moom la am ci ñun xam nga yàlla nag munoon na bañ a sonn ci suñuy mbir bu du woon mbëggeelam ak cofeelam ndaxte munoon nañu bàyyi bu ñu deewee mu dugal ñu safara et puis sàkk yeneen i doomu aadama lu ko yomb la te te- am na kàttan bi lu ko yomb waaw ku koy wax lu tax nga def ko eh, kenn kenn Eh, ñun ci suñu bopp de yow da ngay xëy nga defar benn affaire neexatu la nga moxoñ ko sànni ko kuy ñëw ne la pasteur lan moo tax nga xotti feuille bi nga doon bind ah yaa ko bind sa feuille la am nga sa rawatina nag yàlla sunu borom ba nga xam ne moom rek moo nekk voilà loolu la kon nag bu sonnee noonu ci ñun ba yebal jenn doom ji mu am muy almasi bi Yesu Christa Seydina Isa kon loolu dëgg dëgg nag mbëggeel ak cofeel weesuwu ko pasteur Ahmed pasteur Ball téere bu sell bi di ñuy wax yàlla sunu borom di wéy di ñuy wax ne kon nag bàkkaar ci kenn nit la jaar dugg ci àddina indaale fi dee te dee daal di law ci ñépp ndaxte ñépp a bàkkaar mu yokk ci ne waaye waruñoo yemale tooñu aadama ak mayu yàlla bàkkaaru kenn nit kooku tax na ñu bari dee waaye yiwu yàlla ak may gi ñu keneen nit ka Yeesu Kirist yëwanal baawaan na ci ñu bari ba suul tooñu ñépp waaw nee na mi ngi wax foofu ne kon yiwu yàlla ki ko indi ci biir àddina ba muy baawaan ci ñépp nga xam ni ñépp ci bokk kooku mooy Seydina Isa almasi bi Yeesu Kirist waaw dëgg la pasteur euh, pasteur Ahmed comme ni ma ko waxee sànq rek dañuy faral di tudd yiwu yàlla di tudd yërmandeeg yàlla di tudd mbaaxuk yàlla waaye loolu yépp aaya bi leeralaat na ko yàlla daf ko tënk ci benn jëmm muy Seydina Isa Yesu Krista gis nga tooñ bi ci suñu maam Adama la jóge mu law nag ci lépp loo xam ne ci Adama ak Awa nga jóge xanaa ku jógewul ci Adama ak Awa mais képp koo xam ne doomu Adama nga tooñ boobu law na ci yow te après yow nag ci sa bopp nuñ koy waxee suuxat nga ko ba mu jural la yeneeni ñaawteef yoo xam ni Adama ak Awa sax àgguñu fa woon kon mën nañu wax ne ci mbirum bàkkaar mën nañu wax ni Adama ak Awa ay amateur lañu woon mais après ñi jóge ci ñoom ay professionnel lañu ci ci bàkkaar mais gis nga loolu di law di di faat doomu Adama yi ndaxte fayu bàkkaar moo di dee ba ba waxtu ba jotee yàlla yabal ñu yërmandeem ba àpp ba jotee yàlla yabal ñu mbëggeelam ba àpp ba jotee yàlla yabal ñu cofeelam muy kan muy Seydina Isa Yesu Krista di jëmm ju sell jooju jëmm jooju nga xam ne lenn waralul ñawam lu dul bëgg ñoo musal ci suñuy tolof tolof ak suñuy jafe-jafe jëmale ci yàlla ndax bàkkaar yi nga xam ne ñoom lañ doon bàkkaar kon tey ji daal pasteur Ahmed niñ koy waxee noonu la mooy ni mbëggeelug yàlla yërmandeem ak cofeelam ngir nga jot ci faw nga am jëmm ju sell soosu ñuy wax Yesu Krista almasi bi ndaxte ci moom la ko yàlla def defu ko feneen pasteur waaw jërëjëf pasteur Balla jërëjëf mbokk auditeurs yi kon ñu bàyyi xel ubbi sunuy xol ci loolu nga xam ne yàlla sunu boroom wax nañu ko ci téereem bu sell bi yàlla sunu boroom mi ngi ñuy fàttali ne jàmmoog moom ci Seydina Isa almasi bi Yeesu Kirist rek lay jaar yàlla sunu boroom mi ngi ñuy fàttali ne jëmm jooju di Seydina Isa almasi bi Yeesu Kirist moom moo firndeel mbëggeelam cofeel gi nga xam ne am na ko ci ñun yàlla sunu borom mi ngi ñuy fàttali ne jëmm jooju mooy bunt bi nga xam ne ci la doomu aadama mën a jaar ngir jàkkaarloo rëkk ak yàlla sunu borom yàlla sunu borom mi ngi ñuy fàttali ne yiwam jaarale na ko ci jëmm ju sell jooju mu dugg ci àddina ba baawaan ñépp mën ci jot te jëmm jooju mooy Seydina Isa almasi bi Yesu Christ kon mbokki auditeurs yi jëmm jooju ku ko fat fat nga yàlla jëmm jooju ku ko dalal dalal nga yàlla jëmm jooju ku ko gëm jot nga ci yàlla sunu borom jot nga ci yiwam jot nga ci jàmmam jot nga ci mbëggeelam te ubbi nga bunt bi nga xam ne moo la jëmale rëkk ci moom mbokki auditeurs yi yàlla nañu yàlla sunu borom dimbale yàlla na yàlla sunu borom ubbi xol yi lewatal xol yi ubbi xel yi ba nga xam ne ngëneel googu ngëneel yooyu nga xam ne mi ngi jóge ci jëmm ju sell jooju di Seydina Isa almasi bi Yeesu Kirist ñu jot ci ndaxte loolu la yàlla namm ci ñun kooku moom moo firndeel mbëggeel ak cofeel bi mu am ci ñun mbokki auditeurs yi yàlla na yiwu yàlla wéy di wàcc ci seen kaw di wàcc ci képp koo xam ne yaa ngi yeewoo fii ci biir Sénégal ak rawatina sax Sénégal ñu leen di sant di leen gërëm te di leen fàttale sunu numéro de téléphone bii di nga xam ne mën ngeen ci jokkoot ñun te numéro de téléphone boobu da ngeen ko dégg léegi bu ñu tëjee waxtaan wi wasalaam. mbokki déglukat yi fii la ñuy yemale sunu émission maa ngi leen di sant ci déglu bi te di leen fàttale sunu téléphone di 77 074 35 35 yàlla na yàlla sunu borom wéy di leen barkeel tey wàcce ay yiwam ci seen kaw ci turu Seydina Isa almasi bi Yeesu Christ mën ngeen jokkoo ak ñun ci 77 074 35 35
الروح